bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala ayni irrahmati rabbaniya walyaqutati almutahaqiqati alhaitati bi markazi alfuhumi walmaani wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yu ñuy seetaan ci seen télévision diaspora 24 lëkkaloo ak Asfiyahi TV asfiyahi point org le site de référence sur l'islam et la Tidjaniya niñ leen ko waxee woon ci gàmmu Tivaouane 2015 ñu ngi fii tey ci esplanade des mosquées rawatina ci juma radiyallahu anhu borom bonekaare bi Serigne Babacar si ginnaaw bi nga xamante ne dund nañu tëj burdu bu mag bi nga xam ne kenn ku nekk sa xol mi ngi fees dell ak lislaam kenn ku nekk mu ngi fees dell ak ngëm yàlla gu mat sëkk ñu àndandoo tey ci noppalu bi tamit dund li nga xam ne mooy xadaratul jumaa ngir waajal ëllëg li nga xamante ne mooy màggal guddi ki tax yàlla binduñu mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam diaspora 24 lépp lëkkaloog asfiyahi point org indi leen tey gan gu màgg ñu fas yéene waxtaan ak moom ci yenn ponk ci li nga xam ne moo jëm ci woote bi nga xamante ne maam Cheikh Alhaaji woote woon na ko ki nga xam ne nag moom la ñu am tey comme gan di koo xamante ni moom présenté na boppam mu di économiste di fonctionnaire international di manager à l'organisation mondial de la santé bokkit ci xadaratu tijaaniya bi nekk ci Suisse ñëw exclusivement de la Suisse ak ak délégation bu mag bi mu àndal ngir fas yéene taxaw xadara maam Cheikh Al Hadj Malick ci liggéey bi nga xam ni moom la mag ñi teg ci loxo Serigne Abdoul Aziz Al Amin jaarale ko ci ki fi teg ci boppu kër gi docteur Mouhamadul Amin Kebe ñu ngi lay nuyu di la ziara en tant que qu'économiste en tant que fonctionnaire à l'organisation mondiale de la santé ñu gis ni ren am na feebar boo xam ni mi ngi wër ci àdduna bi ñu koy wax Ebola tey ñu gis ni burdu bi nga xam ne moom la imam bu sayri def dafa ñëw pour saafara jàngoro jullit ñi ñu la doon laaj en tant que fonctionnaire international à l'organisation mondiale de la santé naka la burdu waree nekk remède ci feebar boobu nga xamante ne ni moom mooy Ebola. asalaamaaleykum di bég lool aussi ci opportunité bi. Euh, xam naa lu ma ci wax engagé wul euh, organisation mondiale de la santé dama ci wax à titre personnel xam nga Bourde euh, boroom daf ci amoon mébétu def tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ngëm gu mu amoon ci leeru yonent bi mu saafara ko loola fajal ko mu jàpp ni na mu ko fajale mën na fajale keneen te yàlla itam noonu la waxe woon ca yonent yàlla Yunus daf ne fa najjaynaahu min alxammi wa kadalika nunjil muminin maanaam ci sababu tasbiix bi yonent yàlla yunus defoon laa ilaha illa anta subhanaka nekk kuntu minaz zalimin yàlla daf ko daf ko génne woon ci njàqare ba mais nee na na ma ko ca génne woon noonu laa ko fi bàyyee mu nekk benn remède universel pour képp koo xamante ni am nga njàqare bu mel ne ba yonent yàlla yunus amoon boo defee tasbiix ba mu defoon ma defal la la mu defoon imam Buusari itam burdu bi barke boobu la ko Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam attribué mooy na mu ko faje woon képp koo xam ni jàng nga ko ci churut ya mu tëral moom te mooy sell mu ànd ak tawxiid boo ca yéenee saafara mën na laa saafara léegi nag Ebola bi euh, dafay loo xamante ni li ko indi lu ci ëpp ñàkk euh, maanaam dunde lu yàlla santaane la bi ci jiitu mooy cet an nadaafatu min al imaan la yonent bi sallallahu alayhi wa wax te xam nga virus bi mu ngi jóge ci ñi nga xamante ni dañuy dem ci àll bi rek fekk médd wala fekk rabu àll boo xamante ni toppatoowuñu ndax dagan na wala daganul ndax euh, mën nañ ko lekk wala mënuñ ko mënuñu koo lekk ñu dundee ko te ñu teg ko ci seen baaxi maami bopp te loolu it alxuraan weddi na ko ndax ñamu waxoon inna wajadna abaana ala umma dañoo fekk suñu wayjur yeek suñu baay yeeg suñu maam yi doon doxalee nii wa inna ala atharihim la muqtadun ñu topp ci seen ginnaaw di doxalee noonu alquran ni leen antum wa abaukum fi dalalin mubin yéen ak seen maam yeeg seen baay yi li ngeen nekkoon cànkate la woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwoon pour dindi loolu donc dafay dellu rek ba tey ci loo xamante ni nañu delloo si yi yàlla santaane delloo si yi yonent bi sallallahu alayhi santaane ci diine bu ko defee dana mën a yëwénal dund kon delloo si li nga xamante ni moom la yàlla santaane mooy delluwaat ci thème centralu gàmmu gi ren muy al ilmu wala amal kon diggante xam-xam ak action nga xamante ni aaya bi njëkk a wàcc mooy iqra jàngal was wasjud nga jëfe la nga jàng waxtarib na nga jege sa borom naka nga ñuy résumer le thème centrale du mawlud waaw xam nga ñaar yooyu euh, léeg ñu dugal benn conjonction de coordination ci diggante bi def maanaam bu ñu defee ilmu wa wala xam-xam ak te fekk mosuñoo tàqali ko euh, boo delloo ci alquran geste bi yàlla nettali ni moom la jëkkee testé suñu maam aadama wa allama aadama al asmaa kullaha boo ko toppee loolu maanaam yàlla dafa jàngal maam aadama te jàngal maanaam dafa def ci moom xam-xam mais xam-xam boo dafa ko wax tout de suite mu jëfe ko naka la ko jëfe mooy fa qaala am bi uuni bi asmaa'i haulaai malaaka yi munuñu ko mu ne aadam am bi hum bi asmaa'ihim donc aadama bu doon ci cursus de formation la da nga naan dafa dugg ci école de formation bi léegi ñu def ci moom xam-xam léegi mu daal di koy jëfee léegi donc ñaar yi musul tàqali ko nga dellu ba tey fi yàlla di wax naan ilayhi yasaadul kalimu tayyib maanaam yàlla nee na kàddu bu rafet mooy xam-xam yàlla ne na boo ko yëkkatee rek amul feneen fu mu jekk fu mu war a dem fu dul ci man mais dafa am lu ko téye du dem wala amalu saalihu jëf ju yiw nag moo koy tingoom mu dem donc jëf ak xam-xam mësuñoo tàqali ko te boo dem demee ba tey ci njàngale Cheikh jël Hadji Malick yaa ngi gis daara yi mu sampoon tool ya yi mu nekkoon yi mu mettoon à côté nga xamante ni dafa gëmloo woon nit ñi que ne lii dafay dundal xel lii di dundal penc te ñaar yi il faut que ñu taxaw pour que nit ñi mën a dem donc ñaar yi mosuñoo tàqale ko. delloo si li nga xamante ni moom la yàlla santaane mooy delluwaat ci thème centralu gàmmu gi ren muy al ilmu wala amal kon diggante xam-xam ak action nga xamante ni aaya bi njëkk a wàcc mooy iqra jàngal was wasjud nga jëfe la nga jàng waxtarib na nga jege sa borom naka nga ñuy résumer le thème central du mawlud sànq bi ñuy xëy la la ci jumaa ji ñi ko fekkee vivre nañu lu unique loo xamante ni euh, musul am maanaam benn unité ak benn ferveur boo xamante ni lenn rek rek moo ko lal muy tawhid te mu bokk ci liy dundal gàmmu gi ci ni ko Cheikh Seydil Hadji Malick jàngale woon kon message bi benn rek la mooy la suratul kahf wax daf ne wala tutia man axfalna qalbahu an dikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta booy wut koy àndal maa ngay wut modèle moytul ma ñi nga xamante ni génne nañu yàlla génne souveniru yàlla ci seeni action ak seeni méthode ak seeni orientation ba mu jur seen xol yi far wow ñooñu passion ak caaxaan la ñuy dunde te du leen jariñ fii du leen jariñ fële mag ñi loolu la ñu gisoon xam nga dinaay faral di wax ne Cheikh Seydil Hadj Malick jëkku fee gàmmu de fekkoon na ñuy gàmmu mais yonent bi sallallahu alayhi aussi jëkku fee jàngale tawaaf de ñëwoon na fekk mushrikin yi di tawaaf laa yaqrabul masjid al harama baada aamihim hada ba ko yàlla di wax yonent bi modèle boobu la Cheikh Seydil Hadj Malick appliqué ci gàmmu mooy ñi nit ñi daan gàmmoo boole ci bokkul ak ya ca xaraam yooyu yëpp dafa ñëw extraire ko teg ko fële andil nit ñi tawxiid islaam imaan ixsaan ixlaas yooyu yëpp ànd à l'unisson dellu wuy ji yàlla te encore une fois ku fekkee xel la tey bi di nga mën a dégg loolu de façon très explicite kon tabaarakallaahu tawxiid ixsaan islaam mooy li nga xamante ni moom la ñu fas yéene dund ci gàmmu Tivaouane 2015 diaspora 24 asfiyahi point org asfiyahi TV fas yéene leen gunge ci gàmmu gi ñu leen di jox nag daje ci beneen jamono ak yeneen borom xam-xam ngir ñu xam suñu diine xam suñu gàmmu diaspora 24 asfiyahi point org